jaajëf euh, jaajëf euh, Abdoulaye Diop jërëjëf Maysa Mbaye jërë ngeen jëf internautes yeeg auditeurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel RFM 94 point 0 ak seen journal bi nga xam ni moom mooy seen journal des faits divers xalaat. maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi la koy delloo sa di nuyu auditeurs yeeg internet di ziar mhm. euh, mhm. nekk ci réew mi ci bitim réew. di mi ngi rafetlu mi ngi rafetlu. amul xalaas express wala fi ñu toll nii dañuy dugg ci xalaas bi directement. am naa benn express bu ndaw de am na benn Aba pont bi nekk fële Poutiaray. ci route nationale bi. boo jógee sensu sens sensu Thiès di dugg Dakar. Mhm. soo wàccee pont am na ngandi kamb bu fa nekk. pax waaw yàgg nañ ko mës nañ ko wax fii nii sax parce que keroog def benn accident bu rëy. Mhm. borom moto yi. am pax pax waaw. yenn saa yi tataa yi bu fekkente ni euh, waa Agirut wala xëy na ñi kii wàll woowu ñu ñuy déglu ñu jëm leen dimbali. pour euh, defar leen pax boobu ndax non seulement mi ngi yàq oto yi mais mu fay créer accident loolu bu guddee sax te amoo ay lumière yu xaw leer moom ak fajar bi sax mën nañ la cee fekk ci biir ak fajar bi mm, mm, mm. waaw bu motee dañ fay bari de ñuy teel a jóg surtout ñuy teel a jóg ma ngoog nañ ci bàyyi xel waaw nañ ci bàyyi xel am na solo euh, Sadio Mané <laughs> waaw man wax moo la yow ah, ah waaw dama laa déggul ci mbirum li xew ci réew mi fan yëpp lan moo xew ci réew mi dégguma la ci Dantec Dantec hôpital bi ah, dégg naa daal ngay ngay dugg daal yow daal dégg naa la ngay dugg ci yeneen yoo xam sa yoon nekku ci dégg naa ko pour keroog. lu xew Dantec. Dantec dégg naa dañ koy defaraat. dañ koy defaraat. waaw waaw. waaw dañoo jaay trois hectares yi. ak ah, ci biir hôpital. waaw lañ jaay. xam nga loolu lépp six hectares la. waaw léegi dañuy jaay trois hectares yi pour réfectionner hôpital bi. hôpital bi lañ jaay dañ koy toj. Hmm. tabaxaat ko. waaw ah, dañ koy toj defaraat ko. waaw hmm. dañoo jaay trois hectares yi. waaw yeneen trois hectares yi moom la ñuy defaraat. lu jëm ci wàllu hôpital ki hectare dama ko maîtriser wul xam nga nag man paas li may gisee nii. waaw loo xam ne maîtriser naa ko man laay wax xaw ma trois hectares lu mën. xaw ma hôpital ba euh, lan moo fa xew lu tax ñu bëgg ko defaraat ak yooyu xam nga man tamit bëgg ay wax rek tax toog ci rajo bi lu ne nga wax ko tamit xaw ma li may wax yooyu tamit dama ci def naa amoo xam-xam ah. daal li ma xam laay en tout cas li ci mën tam nañuy ah. communiquer rek. Ah, waaw waaw waaw nañuy nañuy communiquer muy leer ci bopp nit ñi. Mm-hmm, am na xam nga xam nga xam nga bu ñu fekkee dañoo bàyyi espace bi. Mm-hmm. ku nekk ñëw di wax. Mm-hmm. ku nekk di wax yow li la li la li la ñor wala li nga sentir. Mhm. ñoom ñu ne tekk toog di déglu. Mhm. nit ñi lan la gëm. leen di est-ce que duñu est-ce que di xaar nit ñu wax pare pour ñoom ñu génn mën a wax. pour ah waaw mais non parce que hôpital bi dañoo wax ne le 15 ñëpp di génn. ay wax dafa jooy wax. waaw ah. ñu laaj ko looy jooy mu ne dañ maa wax ci heure wax jotagul. waaw wax dellu jooyaat ñu laaj ko looy wax mu ne heure dañ maa wax ci heure wax passé. fi ñu toll nii comme ñoom euh, fi ñu toll nii waxaguñu ŋaangaguñu noppeeguñu wóoruñu ndax trois hectares yenu jaay. Ah. c'est pour réfectionner hôpital bi war a indi ay niiw ay génération ci affaire bagage yeeg yooyu wóor la. Ah. xam nga tey euh, jaay nañ kook jaayu la sax nga Sénégal daal baas daal dañuy tër communication. ay wax li ma maîtriser rek ah te te tey damaa xëy naanaguma café xoola sama café ngi nii ma teg suukar see kaas bi di xaar ku ma ko defaral te ma may sa mbay fi ñu toll nii amul sama jot moo tax yu bari mënu ma cee wax ba ëmb buy yàqu bii kan moo ko ëmb. kii daf fi jaaroon vendredi mais eggul woon. ah xaloo ay hôpital beeg en tout cas daal nañu fexe suñu matelas yi euh, suñu malade yi feebar nañ leen di hospitaliser. malade yi nga xam ne ñoo nekkoon hôpital Le Dantec bu dee dañuy defaraat Le Dantec nañu wut fu ñu leen yóbbu. Ah. ñun daal bëgguñu fee gis malade ci mbedd mi wala ay malade yoo xam dañ leen war a faj di leen sàggane ba ñu faatu loolu daal moom buñ ko gisee incha allah dinaa génn. bu ñu waxee côté boobu nag côté boobu sax moo tax ñuy wax nag surtout ay rendez yoo xamante ni ñii jox nañ leen rendez ay septembre. ñii octobre hmm. cest hmm. nañ nañ def communication bu gën a yaatu quoi. Hmm. defar defar moom defar moom dëgg la d'accord nañ ci defar mais nag na ànd ak euh, ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni kenn du ci loru. ànd naag yow fii. ma ngoog ah, ba fii ànd naag yow. ma bu yàqu bi lan la. dafa jàlloon vendredi mais eggul woon. kii dafa dafa dafa dafa am taawam fii Sénégal yaa ngi dégg. Mhm. li ma jaaxal mooy kii bii nii live <laughs> live bi. Mhm. traduction de en arabe laa ko gis monsieur yaa ñu xamul wala ci man la. <laughs> arabe de laa gis muy traduire. <laughs> dégg nga. mais sa bi nga xam ni moom lu sous-titrage bi. arab la de arab ay alifun yu bari laa gis alifun ay ci <laughs> moom bitim réew la nekk. Mhm. mais taawam Sénégal la ko amee. bi nga se depuis bi mu amee taawam ba pare abaa gént benn gént ci gént gi muy togg am ku ñëw fekk mu ñur mu ñaan ko diwlin ci gént gi de. waaw di musoon naa ko fay dégg. jàllul won man mako expliquer non mais jàllul woon voilà léegi nak bimu bañé koku koku kooku foq takk par force ci ñulug bi lepp ci gënd gi mu xoj ko koku menacer ko ci gënd gi ba fu fa nak ëmb soit mu dé ci biir bi wala mu wosin une semaine dom di dé mom dal bo ba léegi lu mu jur mu dee. dafa bëgg fiñ ton ni ko amna yeneen ak yeneen yo xam ma nga laxaw ci biir yu bari. moom mooy wax. dañ ko teg wante vente eggul woon mais am ñu doon wax naa ndax lii mën na nekk ndax lii am na ak amul. Mm-hmm. moom wax na ba am na kenn kuy dund la même chose waxaat moom tamit. nañ mm-hmm. déglu ko déglu. dama am sama taw macha allah ma ëmb ko si jàmm am ko si jàmm macha allah aw ma benn problème mais depuis loolu bi may am sama deuxième doom mi ma fekk Touba bi ma amee huit mois de grossesse la xale bi décédé si sama biir bi léegi nag bi ma jógee si loolu bi may amaat doom molli dama dem ba terme dama dem ba war a am accouché may saigné xale boobu tamit ma perte ko sama biir bi mu naan deret bu bëri molli xale bi ma mujjee am février bee passé une semaine après dafa décédé xaw ma cinq jours am dama yaakaar ne dama am ay rab ndax toujours damay gént di sëy damay gént di sëy di gént di avant dafa doon ñëw daf may dikkee ay nit yu may faral di gis ci télé di leen suivre rek yooyu mais léegi vu que damay jéem a jaayante su ma géntee même su nekkee si dëgg laa nekk di sëy dama yaakaar gént la damay jéem a def effort jug moo tax léegi toujours léegi daf may dikki laa sama borom kër toujours loolu la may dikki léegi suy ñëw sama borom kër lay lay nekk affaire bi nag sonal na ma torop torop torop torop sama ëmb bu mujj bi sonn naa si torop lu nekk laay gis lu ne ma lu nekk laay gis façon dama ne gars yàlla bu ma juree doom yàlla na nekk nit ba ba bi ma demee ba ba bi ma ëmbee ba ma am ay six mois yooyu si laa nekk di gént am benn jigéen ñëw ne ma may ma diwlin fekk ma si waaj may togg ma ne ko ah diwlin bi bidon mu ngi noonu xelin mu ne ma bidon bi mënuma ko xelin si li nga rosi laa bëgg fekk jour ba macha ci gént bi maa ngi rosi rosi bu rafet ma ne ko déedéet sama rosi cin ma mënuma la ko may xel ci bidon mu bàyyi ba ma wan ko ginnaaw mu daal di jël kuddulus bi daal ton tonne sama cin bi rek ma xooj ko sëggal ko ci cin bi ni ko sotti wattal man du ma rosi ba tollu fii kenn di ko sotti socciwaatal léegi nag bi ma ko defee noonu si laa tiit ci nelaw ma yeew fi damaa tiita tiit ba damaa dem ci sama benn maam bu nekk foofu moo kooku mère boobu moo sama maam bu góor ñoo bokk naay ak baay ma dem wax ko ko mu ne ma ah loolu du dara dalalal sa xel jour boobu dama yendoo tiit bu may dem wallaahi sol xaw naa bañ a sol yére ak ni ma mel noonu nekk jigéenu wérul ñu demati ba ñu ma nekk en terme war ñu war ma césarienne ma tëdd ba xaaju guddi ma gént benn góor gu mag jour boobu mën naa même seede ni du gént ndax man dem naa ba xaw a yeewu sax ba dem ba ma man ma jàpp ne nelawatuma may xeex ak li may gént benn góor gu mag ni mu toll nag maara deytaali bëgg a egg si man léegi nag may xeex ak moom may xeex moom may xeex ak moom ba si gént gi ma ne sam maam de lu ma mus a nekk wàllu na ma ma ñaan yàlla na ma wàllu mu ñëw ci gént gi di xeex ak moom di xeex moom ba mujj egg si man mais daf ma ni góor gi daf ni ma sa àdduna yépp dina yàqu sa àdduna yépp dina yàqu te léegi di ci di nga ca am lu leer man ngay def nii sa àdduna yépp dina yàqu bi ma yeewoo noonu ba xaw a nelawaat ci biir gént keneen bi ma xaw a nelawaat rek dama mel ni ku guux ndox ma tiitee ci nelaw noonu ma ma jógee bi ma ko yàbbee rek deret la def ay luumi deret yoo xam ne maara day taal mel ni dara daf ma xojoon wala dara ci la commencé am problème ma dem hôpital bin ma césarienne bébé bi nekk prématuré ci bébé boo xam ne dépassé naa sa moment bi ma waroon a césarienne ndax boobu temps yoo dañ doon xaar deret am ci jamono corona bi deret amul hôpital mënuñu ma woon césarienne noonu léegi nag si la si la bébé bi juddu nekk prématuré ñu yóbbu ko Thiès ma nekk ci di doo daxe doo dax ba ma ñàkk doom jooju damay gënt di sëy damay wuyutu ba ma wuyu sama borom kër léegi daf may jëppi daf may jëppi di ma di ma wax ne bàyyi si wuytu bi bàyyi sa wuytu bi mais man maa xam ni que man ma ne ko wallaay sama wuyu bi dafa leer naa ñi li may woo dama koy woo mu dégg ko ëpp na une semaine tëddatuma sama kaw maa ngi nii fi ma tëddoon ci màjj bi may lal ci suuf ci moquette bi ci laay tëdd damay ne la ba xaaju guddi ma gis lu ma tiim comme dañuy wax ne boo tëddee si suuf li lay seet du la gis genre yooyu loolu moo tax sax may opté di si si suuf fu ma toog dañ may sama fit bi di def noo xam ne sama fit bi sama fit bi sama fit bi sama fit bi di tëf tëf mel ni sama xol bi dafa nar a génn sama dënn fu ne ma jàmbat ka fa léegi ñu sama benn xarit boole ma ak benn seetkat Sénégal la nekk xaw ma ko nag ma yónnee ko vocal expliqué ko sama problème mu daal di ma laa ilaha illallah yow jugal ci sa bopp yow yaa ngi toog ba nëgëri yow dañ laa fexeel commencé loolu bi mu waxee loolu ma tiit vu que bëgguma dugg ci ay affaire u sëriñ ndax ñaanlu naa fu ma xam tali ma yoron ñepp jeexna mané ma xaaral ma ma wax ko sama wayjur ndax nit amul lu jël wajurom ci la ko sam papa mu wax ben xaritam mu ñaanal ma waye suma la waxe deug ba garab yi ma joxon yi ma ci jotoon a ko lim ma heure bo xey di ko wala wala téré bi takku téré patay awumako lalut sama ndig xawma lan la mu ngi ni tege legi ni man na jóg ne damay dem marché awi ko waaye suma demone marché leneen lu sama yon nekul lay jënd waaye du téré bi lay awdi ko tak cas bu cas bu critique moo nekk nii. C'est la de. te dama la affaire. Hmm. xam fi vendredi jotul egg mais Cheikh Tidiane dafa wax benn bu am solo. Hmm. genre pour ñu côté psychiatre yeeg psychologue affaire quoi mais nous je réagir ñu bëri dañ pas du problème lii nag laaj na nag abaana borom xam-xam yi. ay waxi Cheikh Tidiane wax ay ay waxi la bu jàng ba xel ma dem ay ñu wax la dafa gént xalaatoo rab xalaatoo dara ngay wax ay waxi si cadre xam nga tamit bàyyi sama xarit boobu mu mais ba lii phénomène yoo xamante ni ñu si bëri na en dañ dañ koy noppiwaale. cest à dañ koy noppiwaale. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. mais kii nga xam ne moom mooy ñëw di waxaat nii moom kaaw dafay dem ba dafay jaaxal sax maanaam sage-femme yi ñu koy ñu koy réewle. moom tamit beneen kaa la waaw bu wuute ak kële na le moom mi ngi ci ñeenti doom yu góor yoo xam ne day ëmb normal dem ba ñu baare ko moom daal nee rab bi day ñu baare ko hôpital lay xaar. rab la moom. waaw. Euh, kii dafay confirmer en fait. li kële wax li kële wax. soo bëggee ma jox la ko wala ma jox la Sadio Mané boo ci. non nañ ko déglu déglu. loolu dëggu la man mii nii daf maa dal dalati ma dalati ma dalati ma du benn du ñaar ñett ñeenti yoon yoo xamante ni su ma ëmbee damay nekk dem ba nekk à terme hôpital moom may baare bañ baare ma topp samay visite comme il le faut samay euh, analyse जिनसे और वो मुरे गलम को कुपिता दुन जिस चमंदर उन याल दुन जिस चमंदर dar dar dar dar lo ham anormal leppay normal suma sété suuka ñu normal semua sété xorom ñu la normal yaa ngi dégg ba neuf mois bañ baare ma ma nekk à terme diggante boobu daal hôpital daal di xaar mu baare ma rab bi moom hôpital di xaar mu baare ma mu ñëw nit da mbir moom bu la dalu ree rek dalu rax parce que man dama am sama tahu bi muy jigéen ma amaat sama beneen dom muy góor gis nga ginnaaw sama doom boobu wallahi wal azim teg naa ci ñeenti bant yu ñeent dañuy mot sëkk man la neuf mois amuma sax prématuré amuma fausse amuma ko hôpital say ma bàyyi ne ma toog xaar la métti nga xam ne maatu la diggante boobu la seytaane di ñëw daal ñeenti doomi góor mot sëkk dara wokk leen ma leen di suur nii doomi góor yëpp góor la quatre góor yëpp góor la am benn bu ci nekk jigéen ay ñoom yëpp ay góor lañ duma xam sax kañ laa kañ la sa may jékki-jékki rek biir di métti ma dem ñu a ma hôpital ñu ne kañ nga non noonu xool ak kañ nga gëj a xalé bi yëngatu bañ ñu koy sama deuxième fois ba léegi troisième fois bi day san bu mu mujju bi yalla xam na ko paas sama dom santé na mu gañu sama biir bi pass ma to di xaar yalla rek man santé na mu gañ yëg na ne déna de cetera sama biir parce que dama ngi doon bay xel bu mu sal xel rek su ma dañ baay nak damay bay xel légui nak ci la tok laa toog déglu ndeysaan déggatuma li yëngatu pass ma joy xey joy joy joy joy di xaar yalla dal ndax xam naa ne naa ko si mbaama dee benn sama biir bi metti metti bo xam ma dem hôpital am do moom ñu ma koy laaj rek man xam say fekk man xam naa xam naa lépp ma nga a dégg mu yëngatu ndeysaan dafa def affaire ne lii moom ma dégg benn médecin bi saa su ne lii ko moom lii moom kenn waxatu ma def naa yëpp xam naa xalaas dégg nga wax nag c'est-à-dire pour man ñii di ñëw ñëpp ne dañuy faj ay rab dañuy faj rab Sénégal ay fajkat rab ñoo fi ëpp ko ñuy def ay prévention ci affaire rab ak yooyu. dañuy faj xam nga déggoo moo de. Mhm. maanaam xam nga tey jii nii mën nañu ne paludisme booy tëdd ci moustiquaire du la dara wala mais doo dégg mukk la ci avisé ne non jigéen ñi nañ doxee nii waaw bu ngeen defee nii du ngeen am rab. ñoom def loolu ñoom faj rek faj kese buñ ci amee xam-xam boo xamante ni mën nañ ci dimbali nit yi. ba genre affaire yi du leen dal. wala nan lan la ñuy moytu ba du leen dal leen kese mais xam nga ni lii saa yi lii doy na waar. dëgg la ah balaa ñuy dem ci sa xarit bi Sadio Mané. Ah. mi ngi bàyyi léegi dégg naa. Ah. am na benn waay bu ñuy wax. waaye euh, naa ngi waa Liverpool ay problème de mënuñoo. te attaquant bi indi woon démb ki ñu jënd Benfica indi ko te jëndee ko Sadio Mané. waaw démb dañ ko ruus dafa mbëkk suuf. <laughs> da bu ñu buñ la yenee loo attan yow lu la ngay def. Eh, gaaw énervé nag <laughs> instant instant looloo ma daal. yow eh pas bambal yi ñoo téye seen i ñaan ñoom ñaan yi ñu doon jël di ko zeppee muy dem léegi Bayern lay dem <laughs> yow eh wér nga yow da nga Casamance ji dañoo xëcc ci kaw kenn ay réewantu jël Sadio di ko bay bayal di ko caaxaane di ko kafe Sadio dem baale ay ñaanam ba pare supporter Liverpool yi dëkkoon biir Sénégal léegi bàyyiwuñu Liverpool yem dañ ko bàyyi ba bañ ko <laughs> Liverpool laa gis di mas yi Sénégal di zibilé eh, yàlla yàlla defal ñu jàmm Sadio dañ ko bëgg nga lan yow balaa dem ci Sadio suñu xarit la nag mm-hmm. dafa am benn waay bu ñuy wax

léegi biñu ñu demee vacances li nga ma waxon léegi léegi. pass li ma jàqal ci sali moy bir keur ya fessna mbedd sali do fa gis nit man duma bëgg xam fiet bi ñom na yaakaar fiet nelaw la wala fiet noppalu la man lool bëgg na ko enquête. tout ce qui se passe à sali resta à Saly. li xew ci bir keur dañu ah, dañuy ah dañu liggéey ah ci bir ah bu dugg ah pour le <laughs> may sa may way euh Sadio Mané mi num num def ah may sa Aba sali ko mu la Aba ba du gëm fa ni depuis ay at ñu ngi wax ci. Sadio maane amul Facebook Sadio Mané nekkul Facebook Marème Faye Sall nekkul Facebook Aminata Assome Diatta nekkul Facebook. monsieur le maire Mamadou Ndoye Bane nekkul Facebook. Aba waa ji malgré ñun li ñuy wax yëpp waa ji dóor nañ ko huit cent mille ci turu Sadio ci biir Facebook bi. waaw. te moom waxoon nañ Sadio Mané amul Facebook. waaw moom mu dégg ko. waaw moom nen na après bi ki Sadio Mané woo moo ko rey. Sadio ko après vidéo. waaw moom mu gis Sadio. waaw. nañ déglu. dafa yor compte boo xamante boo gisee da ngay yaakaar ne Sadio Mané la mu mel ni nag kuy envoyé benn xaritam ku tudd Aliou benn souhaité anniversaire bind message ak benn vidéo boo xamante ne vidéo bi moom spécialement Sadio Mané la waaw ak ay photom envoyé ma ko léegi ma ko envoyé ma du Aliou da ngaa jaawale ma ah, damaa jaawale ma ne ko waaw da ngaa jaawale mu ne c'est l'un de mes de mes amis sama xarit yi kii kenn la yoo xamante ne waxtaan nii rek mu bind ma SMS ma bind ko SMS ñu dem ci benn bés fan nga lee passé ma mos ma ci am moom waaye xëy ma ne ko man chauffeur laa bi ma ko ne chauffeur laa ñu continuer encore di waxtaan ñaari fan yoo xamante damay envoyé message ma envoyé ko message tontante un bon jour ma donc lan nga xalaatoon comme rêve loo xamante boo xamante tey bu amoon xaalis moom ma ne ko ah man de d'abord man moom comme nee naa la man chauffeur laa sama université damay ut sama yëfu bopp mu ne ma waaw ça c'est bien mu ne ma loo xalaatoon moom mooy baax ngir nga am loolu ma ne ko je pas xaw ndax euh, affaire yi yëmul de trente millions à dix millions nga doo am loo xamante ne mën nga ciy jënd remorque ndax man safur remorque remorque la léegi